je vous remercie, c'est une géale qu'on a voulu faire au Khalif général de Mourides. Nous connaissons la place de Porokhan. Tout est parti de Porokhan. C'est ici que la maman du vénéré chef est. C'est toujours un plaisir de rencontrer le Khalif général de Mourides. C'est un homme sage, un homme qui a beaucoup d'affection pour nous solliciter ses prières pour le Sénégal de paix, solliciter ses prières pour le président, solliciter ses prières pour la prospérité pour tous les Sénégalais. Merci. Sëñ Touba ñu may ñu teewee bés bi ñëw fi fekk fi général de Mourides sëñ Mountakha bi suñu way bi di suñu sëriñ di ñëw ziyaare si ko andil président Macky Sall andil ko ziyaare réew mi yëpp di barab boo xam ne ni ko sëriñ bi waxee fii la lépp tàmbale kon ñu fi ñëw sàkku si ñaan sàkku ñaan pour réew mi sàkku ñaan pour président Macky sëriñ bi nangul nañu ko ndax loolu lay def saa su nekk koy ñaan ñaanal réew yàlla def fi jàmm yàlla def fi jubóo yàlla def fi